Ah, bon voilà ni ma len ko waxe woon nee kenn ku nek ak say nitu bop tay nag dañoo ñëw fi nga xamanteni ci mom moy mooy chez Maman Chini euh, place Bintu Mbodj wa kër Seydi Jamil euh, Bintu nag yemuñ ci tissu yi ren dañu indi li nga xamanteni ci mom moy dal ak pochette mi nga xamni mom la jigen ñëpp di wër xale bu jigen bu sañse ba ke defo ko dal bu baax defo sa pochette bu baax da nga japp ni sañse wo kon damay dugg fofu nga xamanteni ci moy wa kër Seydi Jamil chez Maman Chini gis li nga xamanteni ci mom lañu indi mu bes muy ay accessoires ay dal ay pochette mom bawul dara nee xale bi dafa paré ci xale ñu dugg xol lim ñu indil waaw neena leen fofu moy cheikh Buntu keur Mama Asini mu tuddé ko yaayam xam ngeen dembu bu bëgg yaayam mu tuddé ko li nga xamanteni si mom lay kuturloo di gitarloo koku bëgg na yaayam bintu nuyu naa la Maguette maa ngi lay fay waaw bintu daaw dañoo ñëw nga wañ ñu tissu yi ren nak dama bëgg ñëk ci accessoires yi ak euh, bijoux yi nga xamanteni si macha allah ren la ñukoy dalal daloo ah Maguette ni rek leen daf defar ba mbax rek pour waaw bintu da nga daan jaay sa client yi ay tissu ñu naan la dañuy bëgg ay pochette bëgg ay dal ngeen leen dina leen ko ci tégal loo sa client yi nga xam ñom ñoo waral li lepp kontaan ci client yi mhm. xam client ñom dañoo ñu ci ñom bu baaxa baax mhm. mo tax ñu def ni rek kër maman Sini mhm. dal yu rafet la ñam mu yu rafet dal waaw bintu du waa da nga ko bëgg bintu wa dëkk ali yi maaka jëlleerlu bu ma damay joom lay wax ñu ñëpp ñëpp mo bëgg dëkk ali yi nayoobe sama kër fi sey ñëpp bëgg ñëppay ñëw alhamdullah sant yalla baax baax waaw kon danga may may rek ma tijjul Ousmane wan ko li nga xamante ni si moom moo am fii ci chez kër chez ñu suñu ay pochette ay dàll damay laal vitrine noonu waa gis naa leen dégg ngeen yéen a ngi vu pochette bu noir mi xew ci jamono bintu de yii lay defanteeg man ak yeneen ak yeneen xam ngeen ni carax bii xale bu jigéen bu sañsee ànd naag tubay ànd naag lépp ànd naag borode ànd ak lépp ñu wàcc gis ngeen carax yaa ngi noonu yaa leen namatuma dem Dakar namatuma dem fenn bintu damay voyager ñëw indil ma lépp li nga xamante ni si moom moo am ca marque la may tegal noonu mom molay demal Chine demal la dubai demal la fep indil la lepp gis ngeen sac bi bu ngeen ko xolé xamni ne du sagu como sagu VIP la li marque la ngeen li ko xol xamni marque la guma ci lol damay dem ci accessoire yi ñom bijou ñom montre xam ngeen ni ku sañ sa ba jek di nga tak say accessoire di nga tak say chaîne di nga tak say lepp xam ngeen ni ko amul ñogu or plaque original yaangi non bintu yi lama defal yi ak yenen yi da lay def di teral jeeg ju baax ji ak xale yi jigéen yi nga xamante ni si bëgg nañoo sañ si takku ba jekk waa gi rek ñu ñëw ci montre yi kooku damay toog ay montre gis nga de marque dalay def nii xale bi ñun dematuñ fenn voyagé tuñ moom moo ñuy voyagé moo ñuy indi lépp chez Sini daal lépp lu waaye bëgg rek boo ñëwee fii ci buntu mbooj mu indil la ko waaw kon gis ngeen fii mooy chez maman Sine dañuy bàyyi Bintu rek mu jox ñu adresse bi jox ñu numéro téléphone bi cliente yaa ngi noonu soxna si nuyu naa la. maa ngi lay fay. tur bi naka la. man Adja Seye laa tudd. waa ajaa dëkk fan. dëkk sëñ Louga. Adja tax nga taamu bindu ki yi taamu ko ci jaaro yi taamu ko ci dàll yi. Ah, gis nga li muy jaay moo rafet rek te am mhm. classe. Mhm. gis nga boo rombee da ngay dugg ndax dafa am classe mhm. boko xolé sa xol day jënd mhm. ndax ma sha allah wax ak yow macha allah day waxtaan ak yow ba nga bég mu jëm billahi entre la woo waxtaan ak accueillir la accueillir bu rafet mhm. motax ma ñew taxaw ci boutique am di waxale ca bamuy mom xalé bi nga xamanteni ci ma sha allah boorewul dara ki wax boolewul daraa coow am jom rek tak ndigam bindu joxe adresse ak numéro téléphone wa ma ngi fi ma central Louga sama numéro téléphone 77 351 53 51 sama fixe 967 11 80 maa ngi fi marché central. loo kontaan bu baax. kontaan bu baax daal suñu xol sedd ma. macha allah sedd si yéen màgget sama rakk ji sedd ci yéen bu baax a baax. macha allah merci beaucoup nee naa leen saa su ne noonu lay demee parce que yéen seen mbégte mooy suñu mbégte kontaan nañ ci au revoir.